ñu gis euh, Barthélémy Dias nangu nañ ko mu nekk candidat wu maire de Dakar mais aussi dañoo jékki-jékki dégg ñu dañ koo woolu euh, tey nax nga ko gisee. Ah, acharnement pour la quoi parce que xam nga dossier boo xam ne am na dix ans ñu ñëw ba teg ko xam nga pour mu doon maire de Dakar gars yi ñëw xam nga di ko bund xatal man bon loolu moom bon kii moo quoi rafetul quoi sama gis-gis bon mën nga ko bàyyi xam nga mu doon xam nga mu jéem xam nga continuer parcours am quoi waaw pour man bon affaire politique la quoi. da nga jàpp ni tamit affaire injustice la yow. non non moom dëkk moom lépp injustice la parce que xam nga door doom làq doom xam nga moo fi am quoi vraiment quoi te dëkk bi kenn rafetlu wu ko quoi parce que xam nga dañ nañ ko def ko première si liste xam nga Dakar bi moo tax xam nga li yëpp gaan mais nag lépp ñoom la rek ah. waaw mais nag kenn kii waaw affaire bu ñaaw la quoi. man ay jamono dama doon wax Barth lu mu def yoon ko mais boo xoolee mbir yi nga xoolaat ko bu dal dëgg rek taxee wax mbir yi vraiment politique moo ci nekk ko ndax barte ba mu ànd rek pouvoir bi dafa amoon jàmm àndul ak pouvoir bi ñuy suli waat dossier yi bëgg ko sàkkal pexe quoi vraiment ñun ay Dakar waa lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo te vraiment gis nañ ni mu liggéey mairie Sacré-Cœur te ñun Dakar yëpp suñ sañoon tey mu loolu noonu liggéey bu mu def au niveau de sa mairie mu def au niveau de la région de Dakar moo tax na tey candidature bi képp kuy jeune Dakar waa da nga ci am fierté ba pare lii ñu koy def ni injustice la vraiment. injustice lan la mën a suñu réew. injustice lu mu mën a indi mooy gars yi dañuy indi ñëw lu mu mën a indi ñi mooy ñaan ñu ko yàlla mooy événement yi fi xew ñaan ñu ko yàlla mais nit ñi bu ñu amee yaakaar nga tax seen yaakaar lan lay jur kenn mënu ko xam man sama jikko mooy lan bu dara xewee. damay toog muñ ñaan yàlla quoi mais danaa dem si réseaux sociaux yi kaas wax mais am na ñoo xam ne mënuñu loolu sénégalais bi amuñu. Fatou Lamine Diaz euh, problème boobu dafa yàgg quoi depuis en 2010 bu fekkee ni kii wu ma woon quoi jiwuma si te en même temps depuis 2010 ba léegi euh, gars yi ñoo ngi koy euh, topp mais fan lay gën fu muy gën di kiiwee quoi fi ñu koy gën di ko toppee moom mooy à chaque fois bu fekkee ni ay yenn événement yu mel ne ay élection dafay am ak yooyu noonu comprendre nga si li ngay gën di ko topp euh, li ngay gën di ko indil ay yenn problème yoo xam ne que peut être xëy na gis-gisam ak gis-gisu euh, euh, ña nekk si nguur bi mënuñoo ànd ak yooyu noonu si affaire de cognac affaire affaire de yooyu la quoi man loolu laa gis ko dama ñoo jàpp na kon affaire injustice da cee am. effectivement Sénégal fii nii je peux dire que nii tout est injuste en ce moment ci amul leen loo xam ne dafa légal xam nga depuis 2012 à nos jours. amul loo xam ne que boo fi tegee fii da ngay wóor lay wóor na la carrément ni la lii nii da nga ko def si loo xam ne que da nga ko yebale nit ñi non non comprendre tey tey ñi yi dañoo gis ñoom lu ñuy gis moom mooy tout moment seen intérêt boobu te affaire bi waru demee noonu quoi. affaire de politique la mais Afnac yi tëddoon na peine bi ba pare peine bi def naa deux cent la woon xam ak ñaata weer te tëdd na ko ba pare xanaa xaalis bi xaalis bi moom fayagu ko te moom nee na amut lu mu ko fayee. mais wax dëgg yàlla mënoon nañ koo bàyyi man jàpp naa daal affaire de politique la élection yi moo tax man loolu laa gis. jàpp ne kon politique moo tax ñu bëgg. politique la lépp politique la départ ba ci fii léegi lépp politique kese la du lenn lu dul politique waaw en tout cas nag nañ ko bàyyi daal xam naa ne daal ñoom seen mbër mii ñu ko bëgg a booleel moom Barthélemy moo ko man moo koo ëpp doole. loolu eh, eh, eh, nga jàpp ah bu ñu leen boolee daf koy wàccee amul sax demal ñëw. moo ko man nguur nag kenn moomu ko yàlla moo ko yor yàlla mi am nguuram moo koy jox ay nit ñun nag dañu nekk ci benn lobby boo xam ne kenn mënta xam naka lay doxee ndax bu élection amee dañu bàyyi compétit gi ñoom ñi dem compétit loolu mooy doxal réew loolu mooy tax réew nit ñi xam lan mooy actualité ak lan moo fay dëgg ak lan moo fa nekku dëgg ñu gis na tey population bi yëpp seen kàddu yëpp mooy suba lii xew réew mii réewum lislaam la damay wax toujours ma ne lislaam moo jiite réew mi te si lislaam lañ ko teg par parloo yi nekk yëpp di ooy fitna wala di yëkkati fitna jërut ko na ñëpp dalal seen xel yi ñu bàyyi bàtt Barthélémy Dias mu dem uyuju su uyujee moom yoon mi nga xam ne mu ñoo ko oo dina xam naka lay def ak ñoom ak naka lañ ko soxloo. bu ñu déggee ci ay waxam euh, opposition bi ñoom nee nañ pare nañ pour jàppale ko pour loolu noonu bu amee est-ce que duñu ragal lu xewoon mars ci diggante euh, Adji Sarr ak Sonko mu xewaat fii si ñu réew. non dëkk dëgg moom jàmm rek gaan la ñuy ñaan quoi mën na bañ am mais tamit xam nga jeunes yëpp nañ dem jàppale ko quoi def soutien xam nga wan na ko na ñun xam nga dëkk bi amul amul maay diw amul amul maay diw quoi dëgg rek xam nga la doomu aadama bëgg quoi. jeunes yëpp nan waaj ñun ñëpp nan dem jàppale ko quoi incha allah. c'est-à-dire que aussi tamit euh, loolu tey nekk loo xam ne que gars yi dañ koy mën di ko résister parce que injustice fu mu amee sa as dëkk à tout moment dañuy ci xalaat lu bëri mën na fi ñëw quoi comprends nga lu xewoon en mars ñaanuñu ñaanu ñaanuñu ñaanuñu yàlla pour mu amaat quoi comprends nga. mais aussi tamit euh, bu amaatee aussi tamit dañu war a essayer di xool à tout moment lu koy indi parce que am na yenn problème yu sew yoo xam ne buñ koy nit ñi di gis dañ koy wax di ko teel di ko arrêté waru ñoo bàyyi ba mu commencé enflammé ñu soogaa di ñëw di wax ñu war a wax ñoo war a ñëw di wax à tout moment dañuy waxante dëgg ak ñi jiite réew mi ku si mel ni le président de la république Macky euh, Sall da ngeen da gars yi dañ war di waxante moom dëgg xamal ni ko dénk mais moomul dëkk bi comprends nga te en même temps moo xam ne aussi tamit forcément dafa war am ay adversaires yoo xam ne dañ ko war a ñëw di ko opposé wu parce que dëkk bu amulee opposant rek moom mooy maanaam arrêté mooy am. zëngal mooy amaat duma ko mun sa morom duma comprends nga tamit euh, le problème le problème à nekk aussi tamit bu ñu xool xam ni carrément que population bi dañuy ñëw toog bañ a wax wala bañ a def dara moom mooy tax aussi tamit tout est permis quoi lu injustice loo xam ni que ne euh, lu dul dëgg gars yi dañuy génn dañ koy kaas afla bu dëgg donc donc ah, donc ñoom seen wàllu bopp ñoom ñoom seen wàllu bopp ñoom ñoo war a xam bu baax ni dëkk bi moomuñu ko. góob mu yegg foofu. ndax tamit fu mu toll nii réew mi ñu ñëpp jàmm la ñu war quoi ñun dañuy liggéey bu réew mi yënguwul suñu liggéey day yàqu ay père de famille lañ ay responsable lañ donc ce qu'on préfère mooy bu bu dara xewee dañ koy waxtaane ba pare opposant ay bu ñu bëggee manifester wu nañu encadrer manifestation yi ñu dem ku ne si jàmm ñu gas ko ba pare justice bu tëggee njaaxaanaay jàpp doom dóor jàpp ki nga xamante ne day na ci pouvoir bi def ay dérive ndax of nag ñu ñëpp a teg suñu bët chaque jour mu def ay rapport am ñu mu incriminé am ñu mu joxoñ na leen ñii dañoo def ay mbir mais kenn du leen def dara loolu mooy lot ne loolu mun na bañ a am te nit ñi tam benn instant léegi yeewu nañ comme li fi xawoon feene munul am fii nii am fii nii coow dina bëri nag mais munul am dara du mujj fenn ci jàmm rek lay mujj daal xam naa euh, loolu moom loolu laa gis daal. grand lan la mun a ànd ci réew. injustice mosul baax mosul baax. ndaxte léegi nii boo xoolee euh, tey nii pouvoir bi sey ci boppam li ñuy jaay loolu moo amut. la ñuy tey jii loolu su leen ci nit ñi toppee coow rek lay indi ak histoire dëgg yàlla nañ nañ bàyyi jaay doole bi daal man daal jaay doole bi laa gis ne moom teguwut ci yoon te lépp moom jaay doole la daal. di ñaax jeunes yi di leen di wax na leen nañ dal ñu moytu lu bëri parce que àddina bi demut fenn. président bi jiituñu bu ëllëgee dafay dem keneen mooy ñëw mooy li may wax tout le temps rek nguur yàlla moo ko amee yàlla moo koy jox nit Barthélemy citoyen la Sénégal la nekk am na droit jël lu ko neex am na droit tey sax ne moom président la soxla mais su fekkee ne ku par parloo départ ñu damm say laaf boobaa dafay nudu la neen nañ ko baax li yoon wax si moom rek na ko yoon def. état bi moom xam nga ñoom la parce que ñoom xam nga chaque jour ñoom dañuy def loo xamante ne si nit ñi dañuy teggaan seen bët comment nga parce que lii ñu def ñu teguñu ko fenn xam nga. birib bipp rek ñu ne ayca xam nga génnewaat dossiers yi bon loolu bon loolu nit ñëppoo a xam ah. parce que xam nga affaire politique la quoi parce que xam nga dossier boobu xam nga arrangé woon nañ ko te Macky Sall bokkoon na si xam ñuy jàppale Bart kon boog tey xam nga bu élection ñëw rek xam nga ñuy suliwaat ay dossiers nit ñi tamit xam nga dofuñu quoi. dëkk bi Sénégal ñëpp a ko bokk comprends nga de euh, kii day am euh, comment dirais-je opposition forcément day am. mënul ñaax as dëkk parce que moom mooy defar dëkk dëkk da ngay nangu ñu lay critiquer critiquer bu ñu lay critiquer sax c'est juste que pour nga ay conseil la quoi pour nga xoolaawaat sa bopp quoi comprends nga bi daal lu am na yoon yenn yoo xam ne naan xaju fi mais bu fekkee ne ñu naan xaju fi ñoom ñooy toog di seetaan au lieu ñu koy teel di ko aati mais dañuy bàyyi ba au dernier moment yoo xam ne que dama yàlla jégal quoi bu ngeen waxee noonu mi foo ma wax ko affaire de hypocrisie te loolu baaxul si dëkk. dañuy wax ne dëgg ñu bàyyi maslaxa yu bëri yi quoi. boo dee benn jeune nekk sénégalais bëgg sa réew nga gis ne am naa dafa am ay sénégalais yoo xamante ne ñoo gën yeneen sénégalais mais ñun ñëpp ay citoyen lañ quarante bu Macky Sall yor moom laa yor moom la kii yor donc bu ñu jël ay sénégalais gën a leen yeneen sénégalais yi boo nee opposant ñu tuma la boo nekkee pouvoir nga am jàmm mais réew mi ñu ñëpp ko bëgg quand même dañoo bëgg réew mi am jàmm. mooy lan ñu teg ko ci yoon quoi ñun ñëpp vraiment lu ñu bëgg mooy sénégalais yi citoyens yi ñëpp doon benn. mais quand yow ku la neexul nga ne bokkul ki ma neex mooy bokk te da ngay xool mbër mi nga xam ne moo gën a neew doole nga teg ko ne kii bokk na ku am doole nga ne du bokk nañ ko génnee loolu tam quand même jaay doole la. li fi xewoon buñ ko ñaanaat yàlla mu xew ndax Sénégal gi du Sénégal gu ñu par parloo di fi xeex wala di fi def naka sudul noonu bu ko waree tëj mu tëj ko mais nag. moment yi ñu nekk nii moom. moment bi ñu nekk nii bu ko téewee du anduwaat bi yenn problème parce que mën nañoo jàpp que lu xewoon mars ci euh, Adji Sarr ak Sonko tamit mun na nekk bu fekkee dañ ko téye. waa moment bii sax du moment bu ñu convoqué nit. parce que moment de tension la mooy lan tey waa ji dafa déposé candidat am fexe jëm si élection pour ay jamaarloo ak ay nawleem nañ ko bàyyi nañ jeexal dossier yi dossier bi depuis 2010 la nañ jeexal yi mu jeex takk man li may oote jeunesse bi laay wax na leen nañ dal. na jeunesse bi dal na jeunesse bi dal àddina du dara lu lu gàtt la mais dafa mën a yàq si lu gaaw loo xam ne bu koy yàq nit ki day réccu après. nos opposants yi opposé wu pouvoir bi def liggéeyam mu mu teg élection yi ci yoon quoi tax tamit ñun ay Dakar waa lañ bu ñu sa bañuñu kenn ah bañuñu jongante ñoom nañu am seen candidat mu dem ñun tamit suñu candidat nañ ko bàyyi mu am égalité des chances quoi ndax tamit ñu nekk suñu ay carte électeur ñu dem voter bu yàlla defee Barth gagné mais alhamdulilah.